jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbegte jàkkaarloowaat ak yéen nu ñu koy defee saasu ne mbokk yi démb moo nekkoon le 29 décembre 2019 fële ca stadium Iba Mar Diop ñaari ndaanaan doon fa bëre waaye wolof daf na ñaari ndab mooy dugg waaye benn mooy génn kii di Tapha Mbeur doon bëre ki nga xamante ne mooy Alioune Sèye Junior mbokk yi euh, làmb ji weesu ñu ñëw fii kër Alioune euh, Tapha Mbeur ñëw seet si ko ngir waxtaan ak moom ci làmb ji démb nu mu ko dundee ak ban gis-gis la am ci làmb ji Tapha maa ngi lay nuyu. waaw Baye Djili ñu ngi lay jaar bu baax di jaar waa wasaare làmb yëpp ak képp kuy seetaan euh, émission bi di nuyu sama gars yi xam ne ñoom ngeen fi fekk waa Alkayda bi parcelle 1 ba 26 bàyyi ma kenn waa Intervin xam ma képp kuy bëggee Tapha Mbeur rek. ak gars yi nga xam dañuy sonn si man ñii ngeen fi fekk nii. maa ñoom avant làmb la jouru làmb ak su làmb passe kon man ñii laa am xam nga maa ngi nuyu ñëpp ku si nekk si turam ak santam di leen masawu coono tamit. parce que ñoom làmb ji nañ si. man sonn naa si mais ñoom laa jàpp ni si gën a parce que lépp li nga xam ni maanaam war war warloo nañ ko ak man rek def nañ ko. maa ngi waat ñëpp waaw di ziar ñëpp. kañ nga jël avance Alioune si Junior. waaw bi saison bi di bëgg a tijji noonu rek. parce que yaakaar naa làmb ji deux mois la durée quoi. deux mois la durée. deux yow yaa jël Alioune Seye Junior wala promoteur moo ko moo la ko proposé. waaw man na ma toog rek ñu proposé ma ko instant boobu saison mi ngi tëjji. man xale laa nekk si làmb. ma jàpp ne Alioune Seye bëri na ay champion war naa mën a bëreek moom moo tax ma jël ko. mais man du ma du ma du ma dem si promoteur naan ko ay propos non non damay toog ñu proposé ma ma jël su gars yi ma jël buñ ñu d' ma bàyyi. ba tax na nga jël ko. waaw ba tax yàlla def ma jël ko. bi nga ko jëlee ñaata séance nga doon entraîner par jour. waaw dañuy entraînement matin soir man même bu dul làmb sax man damay entraînement matin soir. làmb suma moom laa def suma métier ni nit ñi di xëyee di dem liggéey noonu laay xëyee dem entraînement. nit ñi wàcc añi ma wàcc añi ngoon nit ñi gontaat ma gontaat. man noonu laa ko jàppoo parce que du combat benn combat moo tax may entraîner. carrière bëgg naa li nit am ma am ko si. moo tax dama koy jox cëram jox axam bu baax di tàllalaat loxo yi képp kuy parcelle waa wala képp kuy bëggee Tapha Mbeur maa ngi koy tàllalaat loxo ngir mu jàppale ñu. parce que jot na gars yi teg ci loxo daal. parce que li si war yëpp ñun ñu ngi koy def maa ngi saakuwaat gars yi gën yokk jàppale rek ngir ñu mën a atteindre suñu objectif. nga jël nga jógee ci ci combat sa diggante ak Mame Balla am loo ci jëlee muy defet nga jëlaat Alioune Sèye Junior lan la. yow yaa yaa choisir Alioune Seye Junior yaa bëgg di bëreek ñoom wala yow da nga fee mën a teggi say moroom di jël say say mag. non man ñëpp nee nañ moo la mag ci làmb. mais man pour bëree man pour mag ma si làmb yomb na am na ñoo xam te ne dama daan bëreek ñoom ñu jàpp ne samay morom lañ sax te ñoo mag mais làmb boo defee say preuve dañ lay jox ñi nga xam te ne ñoo la jiitu si làmb parce que man dama départ bëre combat préliminaire ba grand combat aw ma defet looloo waral ñu jox ma ñi nga xam te ne ñi daa am lu ñu def ci làmb ngir man ma maanaam liggéey boo gis dafa laaj avancement. Mm-hmm. niveau bi looloo ko yokk te tamit damay ñaan yàlla mu gën a yokk preuve bu ma ko deful woon duñ ma jox ñooñu parce que ñooñu duñ bëre ku deful dara ci làmb loolu kese la yàlla moo def Mamba la mooy suma première défaite mm-hmm. ci làmb boobu dama def dama def huit combats Mamba la moo nekkoon suma huitième combat ma def sept combats sept victoire. kon jàpp naa ne bu ma bëreek moom loolu euh, làmb moo ñu boole mais pas maa ko cherché wala moom moo ma cherché làmb moo ñu boole parce que dama comme niñ ma proposé Alioune Seye dama toog rek promoteur woo ma ne ma yàgg diw ma wax gars yi ne ma jëlal ma jël loolu kese la quoi. ba ngay jël Alioune Seye nga dëgg-dëgg kan mooy Alioune si ñoom. waaw parce que mi ngi ci làmb ñu ngi koy seetaan comme moom rek nu may noonu laa koy suivre. làmb moom ëmb boo ci duggee di naan diw foog ma xam ko doo ko bëreek moom moom xam naa ne doo gaaw a bëre. parce que bi ñuy départ ci làmb ñun adversaire ñu doon am biir stade lañ leen doon gisee da ngay toog rek ñuy lagg ba mu yàgg manager bi ñëw na la kee ngay bëreel kon loolu ajoowul kon may xam kan laay bëreel te yàlla def na sax dama koy xam parce que maa ngi koy suivre avant làmb ji bëre naa ak moom man xam naa ne dama ko daan. balaa ñu yegsi ci combat bi am na loo ko doon sànni ci open press bi nga wax ñu ñëw ci làmb ji gis dafa Mbeur dugg si yaa Alioune Seye kan moo njëkk dugg si ci làmb ji. ci stade bi man maa ko fa jiitu man maa ko jiitu ci stade bi. parce que moom wax na ci ay waxam nee na dafa tardé bi muy ñëw. moom waaw parce que ah xaw ba xam dafa tardé mais man moom maa ko fa jiitu man ñëw naa ba ci kanam ma doog a seen Aliou si biir làmb ji mais man bi may ñëw ci làmb ji fekk moo fa. yow li nga ko doon wax mooy ñëwal stade rek lépp lu xew ci làmb ji yow yaa koy def mais avant làmb ji am na lu luñ ci gis coow yu am ci ñaari camp yi coow bi nu mu demee. ay tooñ la rek. Mm-hmm. ñoom ak ñi mu àndal. aussi tamit am ñu leen si dooleel parce que saa bu coow amee gémi sama cimikaay la ñuy ñëw di jël boo yeeg xam nga bruit boobu loolu baaxul ci làmb te CNG il faut mu jug loo jug ci loolu noonu di suivre parce que tamit dañuy teg ay daan dañuy teg ay daan rek te da ngay gis chaque jour injustice ci làmb ñoom dañuy ñëw bëgg ba fi nga nekk ñu ñëw teg la fa te moom maa ko jiitu ci stade bi nee nañ sa adversaire ki la jiitu ci stade bi muy sa adversaire war ngeen am distance su 15 moom bi mu ñëwee suñu wet la ñëw toog xam nga foofu problème su amee mooy ne CNG waroon nañ ñoom suivre charte yi ñu teg ci làmb ji ñu koy ñoom ñu dañ ne dañ am ay superviseur kooku buy teg ñu ñëw na ko yee eh, waroo teg fii parce que boo ñëwee jege ñi problème mun na am mais yooyu yëpp amul mais ñun ñu ngi baawaat lépp si loxo CNG bi rek xëy na seen superviseurs yi note nañ la. Tafa loolu dina xaw a metti ndax dafa ambar mu préparé combat am ay weer ñëw ñu tegtal ko ndax ku ne xam na ni làmb lépp tegtal la ñu tegtal la ne la fii ngay teg sa ci meekaay ñu ñëw ne la doo ko fa teg sa bakkan nga ciy teg de doon yow tamit di yow rek. waaw mais man dama wax li nga xam te ni moom ñoom loolu lañu wax ni mooy seen charte yu ñu teg ñoom bu dee charte bi ñoom ñoo ko teg dañ ko war a topp ba mu sës parce que mbër yi bu ñu jegantee problème moom munoo ko bañ parce que nee nañ ñi bokk teen bi ñoom ñooy laxasoo ay goj à tout moment mën na ñëw bëgg la def dara sa gaay duñ ko si bàyyi parce que man coow yi ma yi fa am yi si bëri damay tourné rek gis ñoo gaay di affronté mais man yàlla dimbali na ma saa amee gaay dañ naan ma yow taxaweel na le sa yoon nekku si. sóoroon nga ko ci làmb ji coow yooyu yu sew yooyu. waaw parce que des fois làmb da ngay xam ne mën nga fa fekk lu ne. làmb ak coow moom ñoo ànd. mais man moom loolu déstabiliser wu ma sonalu ma damay xam ni ñoom provocation boobu noonu ñoom préparé woon nañ ko rek. Alioune Seye bi ngeen lagg yéen ñaar daje ngeen wax ngeen wala waxoo leen ci làmb ji. daje nañ mais man awma lu ma doon wax ak moom. yee awma lu ma doon wax ak moom. lijjantiwu ma ko sax boobu man maay sama concentration su ma amee lu may waxal sama gaay la wala ma dem samay supporter mais moom awma benn baat bi moo koy wax. ma moo tax waxuma ko dara. Alioune Seye Alioune Seye ban pied lay juutal gauche wala droite. maa moom keroog droite la jiital xaw ma nag ba xam yeneen làmb yi mais maa ngi moom. yow xam nga avant ngay jël Alioune Seye xam nga ban pied lay man droite daal la tegal. yow ban pied ngay jiital. man man droite laa ko tegal. mais yow droite mooy sa pied bi nga xamante ni moom ngay jiital sa làmb yëpp. non man du làmb yëpp droite laa jiital am na làmb yu ma teg gauche. ban làmb la. sama combat ak Karbala gauche laa bëree. sama combat ak Petit gauche laa bëree. sa combat yow ak euh, Mame la droite nga teg. waaw boobu droite laa teg. parce que mën naa ko ko waa moo tax. ñaari pied droite bu ñuy bëree est-ce que seen làmb dina yomb. waaw làmb ji dañuy jàkkaarloo. mooy dàq que kii teg droite kii teg gauche quoi parce que boobu wet la ñuy bëre bëre day tëj bëre bi ku si nekk bu la neexee mën nga tëj bëre mais bu dee droite ak droite mën ngeen jàkkaarloo mën ngeen xeex mën ngeen songante mooy loolu. arbitre bi sifflé na Tapha Mbeur Alioune Seye Junior Alioune Seye féete càmmoñ Tapha Mbeur féete droite noo bëree ci làmb ji. làmb ji dama ñëw andi tey quoi parce que man boo ànd ak ay nit leen déglu gars yi dañ ne ma bugguñu nga ñëw ñëpp yaakaar ne danga nga xeeb Alioune wala joxoo ko cër teyal bul bëree comme ni nga waxee. xam nga ma la looloo tax ma ñëw def li gars yi wax teg bëre bi si yoon tey mënoon naa ñëw arbitre siffle tamit ma daaw ci kawam. mais xam nga gars yi tamit bëgguñu loolu victoire ak boo koy am sax mais nga teg bëre si yoon. ma ñëw teg bëre bi si yoon tey bëre moom mu ñëw njëkk ma song ma tëru ko. mu enchaîné di tegal sees ma ci tegal sees bi dóor ko ku gauche duraat mu rëpp. ma wër ko ndoom ba bës ko mu def quatre appuis. mu defee quatre appuis muy jéem a jógaat ma dóoraat ko ñaari ku si suuf. benn coup bi nag si bopp bi la dal moo kalaate sama loxo bi. ci lay jug noonu mooy jóg magam bi dugg si géew bi fekk ma foofu. foofu dinañ fa taxaw parce que nee na bi nga koy bi nga koy dóor muy rëpp kaat ab yow da nga tarxiis moom mu tarxiis. tarxiis tarxiis bi muy am ñun ñaar ñoom ñu ngi taxaw. xam nga foofu chute mënu fa am. ñun ñaar dañoo taxaw mu ma dëbb ko sol muy rocceeku ma koy yóbbu sama tànk bi ci kanam bi mu tarxiisee damaa taxawaat mu daw takk ma. tegal di jéem a tegal seize ma rocc tegal seize bi. biij ko moom loo tax mu mu mu roxoy rocceeku. ma jam ko gauche droite mu rëpp. bi mu rëppee moom confirmé ni ne dóor nga ko coup bu dal ci bopp ba moom sentir na ni coup boobu am na effet bu mu mën a def sa loxo. coup bi dal na. parce que coup bi man moom a gaañ. mais lépp damay jàpp ni sport de combat la rek. am nga wër ndomba Alioune Seye Junior jékki-jékki bàyyi ko daw jàpp sa loxo. parce que bi mu rëppee kat ab bi di daw di ñëw bi muy jug moom sama loxo bi gaañu moom la téye di jéem a tekki pour pour rëcc xamali ma la. bi mu ko téye nag man dama daf ma gaañ. ma bàyyi ko rek arrière magam bi fekk ma foofu. ma delluwaat sama cimbikaay ma ne gaay gaañ na ma ñun ñii ne ma bul bëre ñii ne ma bareel ñii ne bul bëre ñii ne ma mais su ma bërewul woon. CNG mën na mujj sax dalaat sama kaw. waa xam na li ma si fekk moo tax ma ne xaaral ma ñëw bëre après li si des. ma ma def li ma yoon may. parce que yaakaar naa Sénégal gi yëpp ak ma Sénégal àdduna bi yëpp gis nañ làmb ji xam nañ ni kii premier chute bi Tapha Mbeur da koo daan. ki duggu ci géew bi yow la àndal. ki dugg ci géew bi moog sama adversaire ñoo bokk ndey ak baay Ama Dia mais loolu mu def risque la moom li mu yoroon daf ma ko jam te loolu noonu moom lu ko si feek moom moo tooñ boppam. du ma si sax bëgg sori. moom nag nee na kooku dafa am làppataake bu mu ko doon indil ci géew bi moom la ko doon indil moom la ko doon jox far nga daje kooku. yow naka lañ moo ko wax man waxuma ko de Alioune Seye Junior moo ko wax. xam nga kooku mi ngi reetaan loo sax ñuy seetaan naka laa lay wëree ndomba waa ji di la naka laa naka la koy indilee làppataake ci biir ma nekk ci ginnaawam wër ko ndomb jox ko ko bi arbitre di présenté jox ko ko bi arbitre di bëgg a siffler joxu ko ko bi ñuy lewatoo joxu ko ko bi ma koy dóor nee na adversaire am moom moo simmi laapataake bi sànni ko kooku di daw ci digg géew bi pour jël si laapataake yow nooy rëppee quatre appuis di joxe laapataake man loolu daf ma yéem ko waa maanaam na wax lu raisonnable gis nga bu daanoo na nangu ni daanu na dafa mbër war na kaa mën a daan parce que dafa mbër dafa def ay preuve man daan naa ñu dul Alioune mais maanaam na wax lu raisonnable rek yow mënuma laa jekku nga ne maa la dóor coup bu dal ba nga yëg ni yow mi nekkatoo fi yow nooy génnee ay lappataake di ko joxe xam nga loolu amul mais magam boobu tooñ na ma te baalu ma ko baalu ma ko nag ça veut tout dire lu leer laa wax yàq na sama làmb tooñ nu ma man kese parcelle ñëpp la tooñ mais CNG bi laa bëgg xam nga ñoom la fi ñoom lañ fi teg ñu def affaire ñu dëggal naa sama recours maanaam ñu ñu jox ma sama victoire. balaa ñuy ñëw foofu magam boobu nga wax est-ce que du li bëggoon moom la am bëggoon na ni mbërëm daan te mbërëm daan. waaw parce que salteel na te moom loolu war ko def parce que moom dañ ko xam si làmb gars yi sax ñu ngi naan ma manager la am na kat manager hmm. yow nooy amee carte manager di def yëfu cuune yi xanaa nekkatoo sportif hmm. sa rakk nekkul moom lañ fi njëkk a daan te duñ ko fi mujjee daan mais na na na na teg mbir mi si yoon parce que lii mu def risque la. keroog def na ko yàlla mu def mu génn si dem ñibbi beneen jour bu ko defee li nit a koy fekk foofu def ko li mu koy def léegi beneen wax lay indi ñoom ñooy ay mag dañoo war a joxe bon exemple boo yee leen gën a ëpp fit fuuf dàq leen loolu noonu mais booy duñ ko def léegi dañoo commencé mature bu mag ñi maturul ak kañ la affaire yi di normal xale yi ñoo waroon xaw a wane ñàkk mature mag ñi teg leen si yoon mais magum jëmm waroo def affaire yooyu di tooñ. nga blessé dem ci sa meekaay ñu ne la demaatal ci digg géew bi bi ngay dem xam na ni damaa gaañ. bi may dem waaw mais boobu xam nga sama yaram dafa tàng mais man sentir naa ne sama loxo boo seetloo deuxième euh, round bi bu ñuy lewtoo damaa doon bank loxo yi parce que bu téyee baaraam bi bu ko fekkee day damaa doon bank baaraam yi nii bu tegee nii du mun a ngëb sama baaraam yi noonu laa doon bëreeg moom parce que jàpp naa ne mun dama koy daan à tout moment confiance boobu laa am gis stade bi yow gis nga ko ñëpp man lañ àndal. mbooloo bi mu fa duggool kenn xamul nu mu toll kon man waruma woon ñëw ba foofu di wane ay yaafus wala ñibbi ñu naan dafa am daa ñëw ba si làmb ji daw. Mm-hmm. mais xam nga yàlla baax na man dama ko daan maa ngi xaar CNG après mu àtte quoi. mais c'est la première fois dafa am di bëre damm ci combat. waaw loolu xëy na bi weesu tamit daloon na la. trois combats kay. Mm. am naa trois combats man Tapha Gueye 2 dama dam Mambal Alioune Sèye Junior. lan moo waral loolu. xaw ma xaw ma ay cat la xaw ma booy dañ ne leen tee leen loxo bërëb bi. est-ce que du ni ngay dóoree. parce que booy dóor mbër nga dóor ko foo xamante ni am na nu coup bi di dale yow xam nga ni di nga gaañu est-ce que du loolu moo la jàpp. waaw parce que yow bi ngay dóor moment boobu xam nga yow mu dal rek ngay gis. Mm, waaw man xoolu ma woon ba xam dinaa xaw ma woon ba xam dinaa gaañu xam nga su ma xamoon ne coup bi bu ma ko dóoree gaañu du ma ko dóor. mais xam nga tey man man maa dóor gaañu bu doon sax moom dafa jàpp sama loxo wala affaire yooyu mais loolu da xam ne accident la rek si biir sport de combat moo demee noonu accident la si biir travail bi. moom est-ce que xam nga ni suma àndoon ak yow nga gaañu doo bëre parce que mbër bu blessé mënatul bëre. dafa waaw am na ñoo xam ne sax ñu ngi bëgguñu woon ma bëriwaat mais ñoom li taxoon sax ñu gënoon bañ ma bëre mooy chute bi am ak magam bi dugg si biir géew bi CNG bi loolu xam nga bu ko gëmmee. ëllëg keneen mun na ko defaat wala mu def ko ci làmb ju gën a mag bi loolu day yàq làmb mu tax CNG bii nii daf si war a taxaw mu mu mu mu mu nu mu am na nuñ koy waxee mu ma la sam waay ay waaw waa ji ñu kii ko sévèrement suspendre xaw ma nuñ koy waxee noonu sévèrement lañ koy atte ngir beneen yoon keneen kuñ jekku sa mbër nga toxaar sa mbër bu ci mënee génn mu génn si bu si mënul génn moo xam mais sa mbër bu ñu ko jekkoo nga tas làmb ji làmb amatu fa bu yàggee day doon désordre te loolu bi moo ko war a bañ. mais dugal nga recours. waaw dugal nañ recours bi tey jii nii si boppam. moom nee na bu defee quatre appuis nga dugal recours nga xool doo am dara. xëy na loolu xalaatam la mais man nekkul man kese maa gis sax man sax waxuma nit ñi ñoo gisal seen bopp yéen am ngeen image yi keneen ak keneen am nañ image yi loolu CNG bi laa koy bàyyi man xam naa ne CNG bi bu ko visionné. dañuy jox suñu victoire quoi moom nañ ka daan. nañ ko daan naka loxo bi nag nu mu def. waa kii dal jàmm kii dañ ciy nekkaat si entraînement yi léegi ko. daal luñ la waaw dañ ko rajo waa waaye ne ma dafa dafa dafa damm. Eh, mais man maanaam mënu ma yaaxal ñun ñun tàmm nañ gaañu gaañu. blessure nii maanaam si ñun la bokk léegi. yow yaay doomu nday blessure la. waaw moom day ànd ak man léegi quoi. temps yii dañuy ànd. Tapha daal beneen affaire la léegi médecin bi nee na maam lan moo ko damm quoi lan moo la ci gaañ carrément. ah bi kay dañoo dem mu consulter ma ne ma demal def rajo bi ma dem def rajo bi ñëw mu ne ma da ngaa damm da nga koy palaatere affaire yooyu xam nga. xanaa waaw mais nelaw ma de. waaw dafa metti de. mais ma xëyee rek dama jubale hôpital. gars yi xool ko. sant yàlla rek parce que sport moom ak loolu ñu ànd te àdduna moom tëb tëb rek neex ba bariwul. Hmm. des fois faa mu am loo xam te ni maa moo lay mel ni lu loo mais da nga ko war a gëm man loolu laa man dama gëm ni làmb dama war a sama objectif. bëréew ma pour combat ma ak man carrière laay suivre carrière bi nag lan lan laa bëgg mu rafet dama bëgg li si nit réaliser ma réaliser ko si. nee na Alioune Seye Junior nee na dafa am mbër moo waxoon ni man maa mag magu papaam te magu papaam daan na ko. nee na man paalaa bi ñuy bëree man ak moom ci digg géew bi mu ko jàppee dafa sonn di xëxët ba ma santee ni kii dafa sonn dara nekku fa. moom nag moom xaa sonnul. Ah, moom moo wax de. <laughs> kii dafa neex rek yow man dama ko jàpp daan ko. magam ñëw di ko dimbali. moom moo mag sama magu papa du ma si jóg. parce que moom rakkam sax du sama moroom mais man am jom. ak wane sama bopp moo tax may bëre moom. parce que moom bi muy bëre bëreegu ma mais san ne veut pas dire que moom paal ak yooyu mais moomu mag fop loolu sax du wax ji li si wax ji mooy daan naa ko maa ngi xaar CNG bi tracé après man ma xool combat bu mag ma bëriwaat parce que man instant loolu mooy suma wax. jóge nga ci làmb Alioune Seye Junior foo jëm. instant bii nii. maa ngi si làmb ba léegi génnuma ci maa ngi xaar gars yi contacter sama gars yi combat bu baax ñun ñu sëggaat parce ñun. dañ bokk si làmb buñ buñ bëree dafay neex suñu ambiance dafay neex dañuy dugal public yow démb gis nga stade bi mooy loolu te loolu la promoteur yi soxla loolu sponsor yi di wër kon ñun làmb mooy suñu liggéey ñun xëy ñu nekk si leneen entraînement kese suñ bëriwul ñu ngi perte kon combat bu bu bu jaadu gars yi d'accord ko man pare naa ko. comme ñan nga ciblé fi mu toll nii ñan nga teg bët. non instant yii bëgguma ciblé am na ay combat jànk yoo xam ne gars yi xam nañ ko. nee nañ daal dafa war a jël ay moromam combat xale lañ bëgg parce que Tapha Mbeur ñu muy jël ñëpp ay paa lañ kenn gisatu leen ci lamb. mais ñoom nañ wax kan lañ bëgg Tapha Mbeur bëreel. yow yaa ma gën a xam loo xam-xam ma dem ba ma dem ba gën laa xam boppam. no ma dem ba yaa ma gën a xam ki nga. sama laa xam mais xaw ma adversaire yi kan nga bëgg fi mu toll nii boo ko waxee bu subaa kay promoteur yi seet. ñoom ñi bëgg ma bëre gars yi ñan la ñan laa war a bëreel yéen yéen ngi nii ci làmb ngeen nekk. Hmm. nekk ay journaliste yéen xam ngeen ni diw diw combat jànk la yéen wax leen combat yi parce que man ko mu ma ne si diw da yaakaar ni maa ngi koy préparé xam nga làmb dafa baaxoo yooyu. xam nga tey boo tooyee cité quatre mbër wala cinq ne su ma amul diw diw laa bëgg su ma amul diw diw laa bëgg su ma am ñii dinañ xam ni ay adversaire euh, Tapha mbër lañ waaye boo leen laajul duñ ko mën a xam. non man moom instant nii ah toltuma fu ma naan diw kaa ñu bëre. waaw kañ nga ragal. musul ragal ngir boromam ragal. loolu xalaatuma ko kon tabaski kon tabaski bii di ñëw ma la ñuy tabaskee. man laay su mooy bis bu ma ragalee xamal ni suñu kër tabaski bi ci topp man lañuy tabaskee lu leer laa la wax ñemewu maa ragal sax mais maanaam làmb moo baaxoo noonu gars yi dañuy bëgg sa ay adversaire ñeneen bëgg leneen fii nii ñu fi toog koo ci waxoon danaa la diw yaag diw laa bëgg keneen ki ne la non man moo keneen laa bëgg xam ma la mais noonu la làmb yi di taxawee nit ñi ñooy croiser rek gaa yi fii ku si boo leen laajoon ku si ne da lay wax adversaire bu bokkul mais daal en tout cas mbër moo xam te ne champion la maa moom nekk ko baa jànq moom laa bëgg. grand contre petit dafa xew ci làmb Modou Lo may sens Ama Balde wala mu dajeek ay moroomam mu ngi nee nañ mu ngi doog a dajeek moroomam ci làmb Balla Gaye 2 Boy Niang Tapha Mbeur fu mu jëm ak làmb jooju noo ko gisee grand contre petit bi. loolu mooy neexal làmb sax. mais loolu xam nga est-ce que foofu di nga fa dégg ñu naan ay diw moom mag diw. làmm loolu ak làmm ñoo ànd. loolu de nee nañ moo mag Ama Balde waaye xam naa moo ko mag ci ci ci combat ci nombre de combat ndax koo ba pat yaakaar naa ay génération ñoom ñëpp ay morom lañ ay génération lañ. mais làmm force rawante da si am ñii dañuy jiitu njëkk a bëre. ñii am na njëkk a siiw ñii njëkk a doon champion. mais làmm grand contre petit daf fi yàgg. si def preuve ki ko jiitu da ko war a may loolu la rek làmb gars yi nañ may booy sens parce que booy boo ci gis boo xam te ne day neexal làmb mën a bëre am fit xamal ma la am public non kooku da ko war a mën a jël ngeen bëre si. ànd nga ci grand contre waaw ànd naa bu baax te xam naa ne loolu dina dundal làmb. combat yi taxawagul fi mu toll nii yan combat nga jàpp ne war nañ ko mën a taxawal mu doon làmb ju neex. waaw man daal saa yi nañ taxawal combat Tapha Mbeur rek man loolu laa si gën a gis quoi. dafa mbër bu ñuy taxawal sa combat te waxoo sa adversaire du mën a sotti. man ngay gaan du ma fi kaasal benn mbër naan la doxo doxawal leen combat. yàgg daam seen combat la. yii kooku <laughs> buñ tegoon waaree zeren bi ma ma ma ne leen jox leen ko ko. mais kon kay da ngay wax fi nga jëm. laa yàgg Modou Lo làmb la. déedéet mukk si àddina. yàgg Garga Mbossé làmb la. non yow nooy waxee ak samay mbokk. waaw mais kon Tapha Mbeur waxal ñi nga bëgg a bëreel. yow ñeen nga bëgg ma bëreel. yow. waaw. xaw ma du ma promoteur. Ah, lii rek laa am rek da ngay bañ mbëri woo la naan la tur. waaw wax rek laa eh, mbëri dañuy xànju rek dañ lay nguus bul ragal waxal ñoom duñu dara waxal rek duñu la dara. tey mënuñoo waxtaan ba yeggale te amul kenn koo xamante ni mën nañoo wax ci moom ma laaj la sa xalaat ak noo ko gisee muy promoteur bu mag tëgg combat Modou Lo Ama Baldé nekk ci loxo yoon. muy Luc Nicolaï ban message nga am boo xamante ne en tant que mbër mun nga ko ci lancer sànni ko ci. waaw foofu message bi ma si mën a lancer mooy xam nga Luc Nicolaï moom day jàppale jeunes yi bëri. ak problème bu mu mën a am ak yoon. xamuñu moo tooñ xamuñu keneen maanaam mënuñu sori ci côté boobu. mais maanaam liñ bëgg a wax mooy. muy muy muy justice bi ak état beeg yëpp ñu xam ñaata nombre de personne la Luc di dundal. ak kër yoo xam te lig alalam mi ngi fay dem parce que ñi ñiy récolté si xaalisu lig bëri na ñu bàyyi xel loolu yàlla nag moo xam ak ñoom ñooñu noonu xam te ne xam nañ liñ joteek moom mais ñun ñi nga xam ne ñun lig bu ñu tëggee ñoo am lu ñu yóbbu suñu kër yi ñu leen di ñaan njekk rek waaw xam nga bu dee am na parce que ñu ngi naan am na lu mu war a fay même buñ ko mënee bàyyi mu koy fay dagg-daggee moom muy mën di ñëw di tëgg làmb parce que bu tëggee Ama Baldé Modou loo ñaata combat moo ci toppaat neuf komba ku ci nekk da lay jox avance nga dugal nga dem dugal sa kër ñi ñëw di jaay si stade bi maanaam ñi ciy dund moo bëri ñi koy jaayal ticket moo leen di fay ak ñeneen ak ñeneen stade bi dëkk bi dafa soxla loolu sinon chômage bi day bëri te làmb gis nga promoteurs yi bareetuñ ñooñu nga xam te ni ñoom ñooy dundal làmb bés bu ñu leen éliminé jëni fuñ jëm. ñun daal dañ leen di sàkkuwaat rek ñun ndaw yi xam dañ làmb lañ yaakaar ñu ngi leen di ñaan njekk si Luc Nicolaï ñu ngi koy ñaanal tamit jàmm ba yàlla indiwaat ko muy tëggaat ay événements yi gën a mag te bii nii am nañ yaakaar ni dina ko yeggali parce que moom du moom kese am na ñu ne si ginnaawam yàlla yàlla def ñu may ko ba ba ñooñu noonu yeggali bés bés bi yegg si jàmm moom mu ñëwaat eggalee activité am waaw. jaajëf Tapha Mbeur. jëfaat. mystique jàpp na la ci làmb ci démb. man maa daan. mystique jàpp na la wala jàpp. waa ji dama ko daan kaat appui. mais mystique jàpp na loola jàpp parce que moom laaj naa ko mu ne man dara jàpp ma mystique moom jàpp ma ma ne ko dégg naa arsenalu mystique nga indi mu ne ma Tapha Mbeur mu mystique yi fa ëpp moom moo ko fa indi ci làmb fan ak fan nga dem. daf may taqal rek. en tout cas daal maa ngi xaar CNG jox ma sama victoire ñu jox ma komba bu mag ma bëriwaat parce que parcelle sang bi nii loolu lañ ma wax. Euh, ñu ñëpp ñu jóg te bés bu mag laa bëgg bëgguma ay bés bu ma ne sama bés bu mag laa bëgg ñu bëre. promoteur yaa ngi lay déglu. promoteur yaa ngi may déglu làmb jànk yi nañ ko tëgg mbër yi am mbooloo comme Tafa mbër stade bi fees dell ambiance ma jaar nii nga jaar ne la stade bi di toj bureau yi di am parce que man mbëru bureau yi laa ko waa man kenn du ma activer le mode silence non am na mbër yoo xam ne mooy bëreeg ñoom sa mode silence dañuy activer. parce que ñoom amuñu bruit dama bëgg ñu may jox mbër yi am bruit. yow yaay feeñ moom du feeñ. man may def bruit yow nga activer sa mode silence ba kañ loolu du neexal làmb Modou Lo Ama Baldé xam nga foofu mode sonore la de. ban stade la xaj ban stade nga jàpp ni fa la làmb. gis nga làmb da ngay tëgg mode sonore yi mais mode vibreur yeeg mode silence yi gaa leen bàyyi ci ginnaaw buñ toogee lu yàgg bëriwul ñu xam ni mode silence bi ñu activé la yaay ngi bu ragal lool. <laughs> Tafa kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm parce que gis nañ yombul mbër bëre démb tey nga ñëw seet si ko surtout ku nekk ci blessure nga ñëw bëgg a waxtaan ak wasaare làmb noo gisee wasaare làmb ci làmb. waaw wasaare làmb wax dëgg mi ngi bay waaram ko waa waaw malgré xam nga gisuñu mu yàgg ci lool lool lool mais tey ku xam média bi xam nga wasaare làmb dañ leen di ñaanal rek. yàlla def yokkute li ngeen ciy séntu ngeen am si lu kawe seen njortu te yow moom bàyyi ji li yow yaa ma ngeen xam yow da nga sàngu rek mel ne la waaw du wax lépp. maa ngi sa waaw yow dama lay ñaanal yow sama lonkoo nga. waaw te lonko bi moom day gën a walangaan di bëggee sama gaay fi fekk. bu ma lim kii bàyyi kële mais damay jël lépp teg ko ci loxo Maurice waaw mooy sama président fans club dafa sonn waaw. moo tax man su ma bëree ñu kerejal làmb ji damay am lu ma metti parce que du man kese bu doon man ak man kese mu ngi mel ni ma dem contact xamali ma la après damay dem ñibbi rek garaawul mais ñi ci sonnoon ak boo tourné tet yi ngay gis que ni kii ñii suba mu ngoon jot ñu woon dara ngir sa bés bi ñii ñu ngi tax suuf ñii ñu ngi poussière ñii ñu ngi tooy tooyal seen bopp ñii ñu ngi ñax añuñu ñooñu ñoo metti làmb damay ñaan yàlla rek fi may séntu yàlla maanaam bu dee liggéey moo koy maye naa si yegg quoi parce que xale lañ te gëm naa ko yàlla ñu yàlla defal jàmm ak Bamba fay am na ñoo xam ne ne Bamba fay ak Père Galas am na ñoo xam ne ay mag lañ ak Mor mii Mor borom interview Alkayda am na ñoo ñoom suñuy grand frère lañ ñoom ñoo ñuy maanaam teg si yoon ñu nag ñun nag booy yi ñooy ànd mais grand yi ñu ngi si ginnaaw. jaajëf Tapha Mbeur. jaa ngeen jëfaat. jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan wasaare làmb dégg ngeen li nga xamante ne moom la Tapha Mbeur wax dégg ngeen li nga xamante ne moom la Alioune Seye Junior wax làmb noonu la bu boolewul rek warta tàggale Tapha Mbeur mooy Alioune Seye Alioune Seye mooy Tapha Mbeur bi làmb ji jàllee ba léegi woo nga ko wala woowoo ko. aw ma ndëmbam mais man moo ko wooyee bëgguma fa fekk mag ji ko waa daf ma tooñ. te baal dafa barki baal ko rek. làmb moo deme du ma ko ko baal parce que xam la moo tax moom gaañ na ma deuxièmement yàq na suma làmb. kooku daal tooñ na ma tooñ na suma gaay lu jéggal ko rek. lu fekk na jël. jërë ngeen jëf ñu ngi leen di tàgg tàggaw bi nga xamante ne moo dul tàqali ko bu ëllëg incha allah ak wasaare làmb ak beneen daanaan jaa ngeen jëf.